incha allah alors euh, ñu ñëw euh, ci euh, beneen pàcc ci info matin tout de suite ak un jour au Sénégal un jour dans le monde. ñu retenir euh, que le 30 juillet 1981 euh, opération Fodé euh, Kaba ay forces armées sénégalaises moo ñoroon intervenir foofee ca Gambie en application ci accord défense bi amoon te ñu xaatim ko ci atum 1965 ci diggante ñaari dëkk yi gannaaw benn coup d'état kon ci kaw président Daouda Kairaba Jawara mi nga xamante ne rebelle yi ñoom ñoo ko rek mëne woon tey nag un jour au Sénégal un jour dans le monde loolu la ñuy waxtaanee ak Yaay Kumba Njaay ci weeru juillet atum 2023 Ousmane Sonko nag dafa xam xamle ni ko dafay tàmbali xiifal maanaam grève de la fin moom nag ñu ngi ko defoon garde à ca dikk ndax nag ñaari fan ci ginnaaw dañu ko tegoon loxo ndax vol de téléphone ba mu see jotoon jàppante ak benn gendarme bu jigéen ci benn post bu mu bindoon Facebook Ousmane Sonko nag dafa ni woon xeetu soxo bi mu gis wax lu dul dëgg ak xoqatal bi muy dund ci réew mi taxul nag mu dellu ginnaaw naka noonu si la invité bépp détenu politique bu nekk ci kaso yi ñu bañati lekk ak naan ba tey rek dafa woowaale askan wi ngir ñu ànd résister bu baax complot bi waa nguur gi doon def projet bi ñàkk bañ a lekk boobu nag mu woote woon détenu yu bëri toppoon nañu si ba ci sax Pape Alé mi nekkoon garde à ca commissariat centrale bu Ndakaaru ba ñu ko mujjee placé sous mandat de dépôt Sonko nag dina yeggali xiifal ba ay fan rek laata mu koy bàyyi ci ndigalu sunu kilifa diine yi fanweeri fan ci weeru juillet atum 2013 moo nekkoon faatu Ibrahima Diagne Ben Bass si bi muy am 75 ans bokk na si ñu gën a ràññee ci mbirum audiovisuel fii ci Sénégal mu ngi sos nag groupe Excaf Télécom atum 1972 ci loolu nag si la créé tamit Dunia FM bokk ci rajo privé yi njëkk fii ci réew mi atum 1995. fanweeri fan ci weeru juillet atum 2012 Moustapha Niass secrétaire général bu AFP la ñu fal président de l' assemblée nationale di leen fàttali rek président Macky Sall moo ko proposé woon si loolu nag Moustapha Niass si la fa uutu Mamadou Seck mi nekkoon parti démocratique sénégalais moom nag dina fa def lu toll fukki at ak ñaar laata Amadou maam Diop di ko remplacer 22 septembre atum 2022. fanweeri fan ci weeru juillet atum 1874 ci la Sénégal am loge bu njëkk bu ñu jagleel franc yi loge ba nag ñu ngi ko tuddee woon union sénégalaise mu uutu fa woon loge française bi fi nekkoon la parfaite union histoire franc yi fii ci réew mi nag ñu ngi tàmbali woon ca guerre des sept ans atum 1756 mu nekkoon ab guerre boo xam ne franc-maçon français yu bëri dañu impliqué woon bu baax nag ci défense des territoires sénégalais fanweeri fan ci weeru juillet atum 1971 ay bombardement la ñu seetlu woon nag ci diiwaanu Bagam féete wetu Ziguinchor ñu amaloon bombardement yi nag du ñenn rek ñu dul artillerie portugaise ba nekkoon Guinée Bissau te jamono jooju nag ba muy am fekk na benn mission d'enquête boo xamante ni si waa ONU ñoo leen yónnee woon ca gox ba ñoo fa nekkoon nag li ko waraloon nag mooy ab plainte boo xam ne état Sénégal moo ko defoon ngir ñaawlu bombardement yi ñu doon faral di gis ci yenn ci village yi foofu ca Casamance laata Bagam village bi ñuy woowee Siré nekk ci commune bu Goudomp la ñu sànni woon ay bomb ci atum 1969 ba tey nag loxo portugais yi nekkoon Guinée Bissau ñu si woon ñu taxaw ci fanweeri fan ci weeru juillet atum 1981 si la ñu tàmbali opération Fodé Kaba armée sénégalaise nag dañoo intervenir Gambie ginnaaw ba ñu doon jéem a coup d'état seen président ba Daouda Kayraba Jawara ay rebelle nag àndoon si ak Kukay Samba Sagna ñoo ko defoon tentative coup d'état ba nag ba muy am seen njiitu réew ma ma nga nekkoon ca cérémonie mariage prince Charles ak prince Diana ca Londres ñuy laaj rek lu tax ak naka la armée sénégalaise sauvé nguuru président gambien ba Daouda Jawara waaji kii moom ab militaire bu bokkoon ci opération Fodé Kaba la woon moom mi ngi ñuy xaman ci émission bi muy góor jigéen sama intervention si opération Fodé Kaba 2 bu amoon 1981 en Gambie loo xam ne euh, pour ma mën si dugg si biir il faut que mu def ko si ñaari fànn première fànn bi sur le plan juridique euh, yàlla dafa def ne en 1965 le président Senghor et le président Daouda Kairaba Diawara dañu signé woon ay accord yoo xam ne des accords de défense euh, président bi Diawara tukki dem noonu pour benn mariage diggante le prince Charles ak le prince la princesse Diana si ginnaawam benn chef rebelle bu tudd koy Samba Sagna boo xam ne moo doon diriger le conseil national de révolution de la Gambie jéem a def benn coup d'état ñu nag suñu intervention bi c'est dans le cadre de ces accords moom moo taxoon ñu dugg foofu pour jàppale le président Kairaba Diawara parce que tant que teguñu ko woon loxo son pouvoir demeurer légitime si euh, diggante boobu bu ko koy Samba Sagna avec les field force ñu jàpp ay autorités yu bare bare bare bare bare autorité militaire autorité diplomatique autorité gouvernementale ñu téye leen teg leen loxo def leen ay otage pour ñu bañ a intervenir donc président Diawara ñun avec des jàmbaar vraiment il faut le rendre hommage fexe nañu ba ñu delloo si ñu jógee noonu ñëw jaar Sénégal delluwaat Gambie le 5 janvier le 5 ju le 5 août fexe nañu ba mu toogaat fu mu toogoon boo xam ne mosu fa jóge continuer diriger le pouvoir parce que période boobu yëpp li ñu tuddee de forces loyalistes euh, Diawara ñu ngi doon continuer di xeex loolu moo tax suñu opération bu nekk légitime donc le cinq août opération yëpp jeex nañu opération militaire yëpp jeex nañu président Diawara dellu si waat na si réewam toog na fu mu toogoon vraiment continuer diriger pays euh, sur le plan militaire maintenant là aussi je voudrais rendre euh, un hommage appuyé aux jàmbaar qui ont participé à cette opération opération militaire lu mu ti lu mu tuuti tuuti lu mu rëy rëy rëy opéra intervenir à l'étranger ce n'est pas te jàmbaar yi def nañ ko avec beaucoup de succès suñu chef bi à l'époque maa ngi koy mooy le feu colonel Abel Ngom ñun on nous a fait su booy donc Abel Ngom am na yeneen yoo xam ne ñoo ànd ndax moom ñu yore le parachutiste mooy le colonel feu colonel Bampassi ñu yore les commandos le feu colonel Georges Boissy le colonel Potin nekkoon na escadron blindé mooy yoroon na blindé avec euh, plus tard le colonel Wan jàmbaar yëpp daal man sama adjoint. Souleymane Mané foofu la bakkanam foofu foofu lañ ko blessé ba bakkanam des si diggante seen diggante bi donc ñooñu ñëpp maa ngi leen di rendre un hommage appuyé vraiment day jàmbaar nañu te loolu dafa nekk ndamu Sénégal ñu defal ko suñu dëkkandoo mooy suñu voisin de euh, waa Gambie pour jàmm am foofu jàmm su amee Gambie rek am na Sénégal loolu moo tax sur le plan militaire vraiment ñu ngi sant bu baax di remercier toute autorité militaire yoo xam ne def nañu intervention loolu mooy opération Fodé Cabral opération bi fexe na plus tard ñu créer lu ñu tuddee confédération di alors euh, euh, di ko remercier bu baax Yaay Kumba euh, donc euh, Ndiaye ci un jour au Sénégal un jour dans le monde euh, Malick waaw xam nga président Euh, Daouda Kairaba Diawara moom moo mm. nekkoon à la tête de l'état de euh, de Gambie depuis ba Gambie amee indépendance en 1965 donc bi mu demee ci mariage prince bi ci la Samba Kukoy Sagna euh, def coup d'état boobu ba taxawal sax lu ñu tuddee un conseil suprême de la révolution mm. li ci njëkk am mooy d'abord dañu jël ay otages bi nga xamee ni soldats sénégalais yi ñëw nañu foofu ci otages sax bokkoon na ci ñaareelu président Daouda Kairaba Diawara mm. ba ñu wax ni bu Euh, troupes sénégalaises yu génnul dinañ leen exécuter mais li ci am solo mooy le professionnalisme ak euh, également euh, suñu engagement wu force de défense et de sécurité rawatina suñu armée parce que fexe nañu ba restituer li nga xam ne moo de l'ordre constitutionnel ba le président Daouda Kayraba Diawara delluwaat au pouvoir Samba Kukoy Sagna avait même demandé l'asile ñu ñu ñu refuser ko ko finalement il est décédé en 2013 au Mali foofu la mujj foofu mais loolu day wane rek relation yi nga xam ne am na diggante Sénégal ak Gambie ça ne date pas donc euh, ñi nga xam ni tey mooy génération nouvelle bi li ñu fekkee mooy euh, bi euh, président bi passé nii Yaya Jammeh bëggee arc-bouté au pouvoir ak l'intervention militaire sénégalaise pour rétablir le nouveau président dans ses droits loolu yaakaar naa ni yàgg na ci coopération diggante Sénégal ak Gambie ci la confédération sénégambienne bi juddu woon mm. ñuy wax la Sénégambie merci beaucoup Malick di remercier aussi cet ancien militaire euh, bi pa bokk kon ci opération euh, Fodé euh, Kaba moom mi nettali kon yaay Kumba li nga xamante ne moom mooy liggéey bi ñu fa defoon ci foofee ca Gambie fii ci ñaareelu pàcc donc émission bi dinañu dalal Serigne Abdou Khadre Serigne Abdou Ahad Mbacké Gaynde Fatma mooy président bu commission culture ak communication bu Grand Magal bu Touba ñu ñëw léegi ci xibaar yu gàtt yi